malak islam gane adna dalli taku la bamba xamne am na lam doon sakku te kon na Seex Bamba di ñaan buur yàlla jàmbaar jaaskanoo ci Mbàkke Balla yoor yoor la juddo alxames wa poroxaan yoor yoor di alxames la tabbi fil jinaan bam juddo ba takku ser baatam ya bamba daw njëkkante ko baayam ba keroog la maamoorante naa see bamba se ñaan nga nungu na kilee yor yan ba xam naa ne mooy sam aliw mba amar billahi su bamba doon muusa mu aaroona seeni mbir ak yooyele mbir noona na ko sooy aamiru may waasiru sooy xutba may xaw su tama lay soobu fekkoon na bambay jàng saaru xasas ba ca fa arsil uma i la ko gisee see bamba daal di dem fa nekk maam faati jàngal ko ba sabitum jijaar ya juróom ñaari cër bu nekk amu saar mu julli fay rakk taxal ko fataar roog la bamba sangi mbooleem cër ya mas la dox fi lu araam fa bar ya foofee la bamba toog bindal ko teere xaar bar ma bool xool ko ndey amuy teere foofee la bamba toog bindal ko teere xaar bar ma bool xool ko ndey amuy